apa père. ah boy booy ak goog de. ñu ngi ziar. noo def. namm naa la. ci loo ne. sant yaa ngi ci jàmm waa ni nga def. waaw gis nga. bien chapé. yang <laughs> merci. sañse. <laughs> merci beaucoup yaa ngi ci jàmm. maa sant yàlla. nu ngeen def ak koor gi. sant alhamdulilah baal leen ñu àq. baal nañ la baal nañ la. teyoo ko mhm. ay déwén man lol jaxal na ma parce que olof neena nee na dugg ci keur do jaar ci palanteer te wuro tepp nit ci buntu bi ngay jaar te fi may buntu bi ma gis la ngay fréquenté wa famille bi te ñi ay nitu intérêt lañ dé ñi ay baadoolo lañ dé wax la wax ju neex lek say koppar ba mu jeex vider say poste ba paré ñu la us du dara ci ñom non la nu mel may estimé nak lol bëgg la dimbali bëgg la orienter touti léegi xam nga yaa ngi duggu ci kër gi mhm. des fois nga génn mhm. nga am na benn booy bu mool booy dajanteel bu gàtt booy bu mool te am xorom nii yëngatu ah <laughs> Ndeye Ndiaye waaw Ndeye Ndiaye fii ah. ma fille xam naa loolu xam naa ne yaay c'est ma fille xam naa yow xanaa bi ngay dugg fee di def choix gis woon Ndeye Ndiaye ah mais nag père sama xol contrôlé wu ma ko commandé wu ma sama xol de waaw mais nga jëm ko orienté mooy orienté de déet sa xol mu commandé woo ko waaye man nga ko jéem a orienté. baax na de. ah fi ma ko orienté baax na. baax na mais man man xam nga man problème mu situation familiale la wax. Mhm. ndax famille bee daa am nu ñu mel du ñu ay gor. te man du ma lekk sa xaalis ba pare di la toroxal mhm. lépp loo defee perte nga ko boo ko defee ci man na gañe nga moo tax ma proposé la sama doom Ndeye Ndiaye. li nga wax lépp dëgg la mais xam nga ànd yàlla moo koy def. waaw ànd yàlla moo koy def tax. suma and ak momita yalla moko def. ba legui boy comprendre go Fogo nan ko am technique nga waye sa technique dess na man nga nefe sax mais bu la nexe jël ko ci souf xol ba xam bo jëloon ndey jaay ran ko ci souf rek essayer yi carzu fi lay di nga xam ni ndey jaay du ci pouca mamita tam du ci pouca ah way nak du ci pacha de pouca du pacha momita du ca puuca tamit pouca pacha ah, <laughs> <laughs> <laughs> ah boy, la ya yaa mën tontu. yow dal ku la bàyyi nga défendre sa bop rek. da ngay genn ni. yow yalla la indi sax ndax man dama don genn ni. ah da ngay genn wa waaye xam nga rek coonoy koor problème mu dix mille daal laa am pour dépense kër gi fii waaw ñaari junni waaye bu ma la gisee rek laa laas ni sant naa yàlla ndax yow moom wax dëgg yàlla ku dal ci sa kaw heure bi yàlla du tas sa yaakaar dëgg la wallaay ndeysaan léegi ci banque bi laa doon dem ah waaw mais dama fi doon jaar vite fait rek pour am benn affaire bu ma récupéré da nga dem ci banque ba ñëw wala non non fa laa jëm dama doon jaar fii rek ah. vite fait pour benn affaire chim am na yoo xamante ni bu leen ko di def nit bu lay boy génn nit ñi dila yaakar boy booy sa poste na ci dara di ne deglu rek xam nga joge ci banque bi ñew fi mo gëna jaadu nga joge fi na nga delu ci banque bi luy luy nday jaaroo ca banque ba par soog a ñëw fii wala legi deet bu ni ma legi boy dama lay ma lay expliquer dama lay expliquer legi bayal ma duggu rek leen la 10000 yoro dara dara ni ni ni dara ma ngi ñew legi xaar ma fi ma génn vite fait la dama lay xaar waaw yow legi 10000 ma jox fo koy jële lolou bu problème père ah bi boy bi nga sam ki dalul sama xel de ki nga bëgg a sama yakkar man booy bu ñu génnee seen cukkur cukkur ak seen kaccar kaccar seen cheba laala ay parfum ki di wengaloo ko ni seen poos deureum neew ci do jaar ci banque pare soo ñew fi nga nan dama fi fa la fi jëlé di mi oh tot tot tot man da yalla bu sama yakkar de waaj tas ndax man ci boy bi la jëkay a def naka koor gi yow est-ce que da ngaa wóor sax. da ngaa wóor. foog ñu diagnostiqué la. <laughs> wala ku wóor naka lay mel. parce que ñi commencé ñëpp seen yii dafa commencé nuux te yii di gën a kii nii. bay tooñ bay yi may def wóor rek laa def. man de koor gi jàppi ay genoux ci ren laa ko gis ren. foo mu see gis koor guy jàpp genoux. barki yàlla sama genoux yi la jàpp. terewul laa bañ a wóor de. ah lu leer laa lay expliqué. yow xamul na waa ñeme koor sax mais ren moom dafa garaaw de. bëri feem nga def maa la baal. yàlla dafa dafa dafa yokk loxo. waaw wuyu ma tey moom aw ma envie ndogoo ceeb. <laughs> yow nag xamoo sa bopp de <laughs> ceeb rek ci koor. mais tey michu la am envie. ak nga fuuy ak glace choco vanille. mën ngaa fecc rek ngeen <laughs> ngay yokk ah. doo ma rey ak fruit. Eh. waaw amul amul problème xam nga man dama laa nopp. ci li nga bëgg rek laay dox. xam naa loolu mais ma génn ñëw. yaa ngi nii waa ji dem ma dàkkaale ko. non non non. bàyyi ma gunge la raawul da nga may tardé. te du ma yàgg damay dem bu feeñu. yaa ngi ñëwaat maa ngi ñëwaat. Ada. waaw sama góor. comment tu vas. mais nii nga def ci koor bi. waa gis nga. def baax kañ ngay kan bàyyi saf rek eh, bàyyi. kañ ngay forox rek ma fekkee ko. mais yaa ngi si jàmm. oui ma fan nga jëm. maa ngi waxna la fi ngeen ndogoo tay fi lay ndogo gissa dama son dama mujj commander sax xex restaurant Madiba ci Fama te xoolal xex bu neex lañu togal tay fi ngeen ndogoo ci fii laay ndogoo laay ndogoo. waaw kon nañ demaale une bonne fois wa je so léegi yoroo di ma am ben affaire bu ma rek la rek Ada xam nga ñaata dix mille nga ma amé xam naa ko jox ma rek yow man ak yow far. xala bayil di ma ba bay sama dix mille li ngay lek xam nga sama digënté yow la. Ah. min ka ilayka xam nga min ka ilayka. dee ma def nii di ma baax. yaay sama goro jox ma rek dafa am lu rek léegi maa ngi ñëwaat. jàpp rek aada bi yoon moom xala bu mu yàgg. goro yombul nan dem. mel ni man. li affaire doon laaj. 10 000 yi nga laaj sànq. est-ce que xàmmee nga laaj 10 000 xool nga ko sa ñaari bët ba